te yaakaar naa ne li ngeen weesoo gis ngeen ni mu demee fa tabaarakallaahu lu bett ñëpp la lu ci la lépp di di di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëggu dëggu ci yéen sëñ Tuubaa nekk ci yéen ngeen ngeen ngeen jóg ngir sëñ Tuubaa loolu li ñu weesu lépp leer na taalibe yëpp nangu nañ ko xam ñëpp xam nañ ko man nag man ci njaal bi waxoon naa leen ko ma leen ànd yéen man damay dama dama damay maag maag damay wut fukki murid saadiq yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen muy muy muy fukk maa maa ngi ñoom. bi nga xam ne yàlla dogal na liggéey bii dama wax damaa war sama yëpp sama lépp dama ko sama lépp yi sama lépp sëriñ bi dama ko war a yokk jëm ca kaw. loolu moo tax ma ne leen kon def naa ko téeméer waaw waaw dama def naa ko téeméer juróom-ñeent fukki muri saade ak juróom-ñeent ma fukkee leen ñu ngi nii. wajalilaay maskani tubaaba misrasmiha bi jaayi xayri ma nabaat waajal lilaahi maskani tuuba teg maa ngi noyu rek te yaakaar naa ne maa ngi ñaan am ñu ma ci wuutu waaw kon sa yaay bi mu ngoog mu ngoog noonu dong la demee joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yépp